donc aujourd'hui euh, man bu ñu ma éliroon gis naa ne am na point yoo xam ne yi bu ñu ko réglé wul dañuy amaat même problème gis nga ni ñuy tabbee élection yi bu ñu ko réglé wul xam nga actuellement am na ñuy courir le bruit que dañu war a supprimer parrainage ou euh, citoyen euh, parce que def parrainage député mais député yi nekk ci assemblée nationale kan moo la élire le peuple mais ci ay coalition lañ leen élire ñun Yewwi Wallu élire nañ leen quoi ñu war a jël député yooyu jox ko seen i candidat waa PDS candidat yi ñu am ñan ñoo leen élire. yéen ñu koy jël ñoom. c'est injuste. Askan Wi waaye Yewwi Askan Wi yi ñuy élire yi ñu am yëpp fu ñu ko amee est-ce que amul ñu beddeeku si ñoom ñoo xam ne seeni i voix nga fa. Mhm. kon parrainage u député ci conditions yi ñu ko defee c'est injuste. collectivité locale même chose ay coalition la ñu amoon en 2022 nga jël ko jox ko benn nit am na ñoo xam ne mënuñu am fukki nit sax ñu jox leen parrainage jox leen jox leen euh, fukki député ak ñett loolu yaakaar nga ne yoon la loolu dañ ko war a waxtaane actuellement xarala yi am ci réew yëpp ci affaire u parrainage ñuy def recensement 18 millions d'habitants amul coow amul doublon mën nañ def parenage électronique boo xam ne bii mun nañ ko def rapidement mm-hmm. war nañ ko xolaat wala mënuñu ko xolaat fichier bi sénégalais dañu jël en otage keroog maa ngi waxtaan ak sama sëñ bu baax bi sëñ Moustapha Saliou bi di waxtaan ci affaire wu représentativité ñi nga xam ne ñoom la ñuy élire boo xoolee dix-huit millions yi ñu jël ñi ci am droit voté nga dindi ci ñi inscrire mu dem ay sept millions cinq cent ñi inscrire nga dindi ñiy voté muy trois millions cinq cent ci ñooñu di voté kii gagné un million et quelque lay am un million et quelques ñoom ñoo élire pour dix-huit millions de sénégalais. c'est la loi du vote. mais c'est pas la loi du vote la loi du vote mooy permettre le maximum ñi am droit voter ñu inscrire. mais il y a des sénégalais dont c'est le droit de ne pas voter. non wax ils choisissent de ne pas voter ils sont libres loolu laa lay expliquer. y en a qui choisissent de ne pas s'inscrire même dans les listes électorales. ñun li ñu war a li ñu proposé mooy une inscription automatique. comme en France. dix-huit ans tu ay campagne de radiation radiation justice ne la kii amul droit voter nga génn ko radiation ñu ne de tele période à telle période comme vote bi c'est pas obligatoire na nga dem nga ne dindi leen ko dañuy inverser affaire au lieu ñu ne demal inscrire période bi dañu naan demal gome sa bopp bu ñu ko defee dinañu am benn maasu électeur ñu séparer carte d'identité bi ak carte électeur parce que c'est pas la même chose sur la base de ce nouveau fichier là ñu defar ay carte d'identité yoo xam ne voté rek lay jëriñ boo voté ba pare nga dencaat ko ba élection amati carte d'identité beneen fonction la c'est une fonction d'état civil nga xool nom du père nom de la mère le droit à la nationalité et cetera dafa am ay conséquences juridiques yu nekk ci carte d'identité yoo xam ne bokkul ak conséquences juridiques yi nekk ci carte électeur bañ nañ ko ba da ngay gis sa carte ci ginnaaw ñu ne la ne c'est pas voté donc bu ñu ko defee ku nekk di nga am sa carte électeur lan moo des su la base de ce ñu defar bureau de vote répartir ko ñëpp am ko ñu def logiciel parrainage ku nekk ñu jox la terminal boo ñëwee di jël parrainage ñu ne la caution bi 30 millions la nga déposé 30 millions ñu jox la les terminaux pour les différents coordonnateurs ah jox la mot de passe nom d'utilisateur. est-ce que waruñ ko yokk. loolu. est-ce que waruñu déjà exiger la caution avant le retrait de la fiche. de mais loolu laa lay expliquer nii bu ñu defee caution nga déposer sa caution. avant après c'est la même chose façon ku fas yéene bokk élection tu te prépares en conséquence nga ñëw déposer ñu jox la nga ne may euh, Maïmouna Ndour Faye terminal baa ngi nii sa numéro identification ñun noonu lañ defan ah. ñun logiciel bi ñu am bu booyee NIN boo ko bindee tu as le nom y a ñu ne la mu ngi nii nga signé kenn mënatul dugal Maïmouna Ndour Faye ku ko dugal mu bloqué bu sa 44000 jotee ñu ne la jot na ñu indi fiche tiréel la ko booy dem conseil constitutionnel ci sa dossier nga koy déposé rôle lu conseil constitutionnel c' est pas de contrôler des parrainages. donc yow jàpp nga ne DGE la ñu war a attribuer ce rôle la non pour man nag la dernier point mooy dafa war am une haute autorité buy organiser élection. bu uteeg Sénat bu uteeg. Sénat DGE yëpp dañuy yël haute autorité boo xam ne day moom mooy organiser. pourquoi pas ministère en charge. des élections non ministère dafa atteindre ay limitam am toll ñorooguñu tollooguñu foofu. c' est à mais Cheikh Gueye l'a réussi xam nga Cheikh Gueye l'a réussi en 2012 il y a pas eu de contestation le système moo taxit moo taxit dindi lañ ko dindi nañ ko président bu nekk bu ñëwee président bi ñu ko waxee mu def ko daf ko bàyyi dafa bañ yéen ñëpp seen kanam la journaliste yi la ko wax. xalaatuma ko dafa bañ carrément. <laughs> mu ne xalaat ñu ne ko dindil ministère de l'intérieur mu ne xalaatuma ko. gis nga euh, euh, gis nga système politique boo bëggee mu am mu durer comme américain yi ni ñuy def dépendul ci nit ki. moo tax ñoom ñuy wax ne dafa war am institution yu forte kuréel yi ñoo war a dëgër man dama d'accord sax kuréel yi la war a dëgël mais nit ñi dañu war a maandu